moom yow mun moo di ab bëccëg wala ak genn guddi yow lum nga def ko guddi ak bëccëg da ngay fanaani ci guddi ci jàkk ja bëccëg ba ca topp nga yenn ko fa woor ko jant bi sooy nga génn benn bëccëg nga yéene woon wa akmalahu gën jaa matal nag ay ayyaamin mooy fukki fan li ci gën nag mooy nga def ko fukki fan soo ko mën def fukki fan yu mujj ci weeru koor itam lay gën a baax waxuwa moom min nawaafilil xayri bokk na ci naafila yiw moom nag nee na bokk na ci yi ngi def muy lu baax rek te warut des koy def rek ngir bëgg a mbiru malaaka yi ci jeex tàkk ci jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla ak sori sa bakkan xeeti bànneex yeeg ba nga dugg ci lu am njëriñ man ko malaaka yi mel rek loolu la ñuy jéem moo tax koy def waaye nag du waru gar kum soob def ngir bëgg lu baax wala xoo ñeel na ko arkaanu ay ponk arbaxat ñu di yent am na ñeenti ponk al awalu bu njëkk bi al mu'takifu mooy aji lixtikaaf ja waxoo moom kullu muslimin mooy bépp julit mu may sin bi aji xàmmee fa yasixu kon dana wér minal mar'ati tukkee ci jigéen wa sab yi ak gone wa raqiq ak jaam dena ponk mu njëkk bi mooy waa ji lixtikaaf kooku ne nee na bépp julit boo xam ne am na xàmmee rek xam ne du gone bopp du ab dof mën na ko donte jigéen la wala gone la waaye xàmmee na wala jaam la itam mën naa lixtikaaf waaye day aajo jaam mu am ci ndigal jigéen ci day aajo mu am ci ndigal ci jëkkëram jaam bi sang ci amee ndigal ak taani ñaareel bi asoom mooy koor mooy koor falaa yasixu du wér bi doon yi ci ludul koor nekk jàkk-ja kese te wóoroo bëccëg bi du doy faaw rek booy lixtikaaf moom da nga woor bëccëg bi du ci mën a ñàkk doonte daa màggat ba mënta woor itam kon du kon du doon lixtikaaf man bu ko neexee toog ci jàkka ji rek jaamu yàlla waaye bu wóoru rek moom du doon ixtikaaf ak taalis sa ñetteel wi aji ñetteel ji almuxtakafu mooy béréb ca biiram moom almasjidu mooy jàkka fala yasiqu du wér fii xëy yu ci ñetteel bi mooy béréb bañ koy defee am na nee na rek lay doon kenn mënu koy def ci sa néeg sa néeg bopp wala sa bitik wala feneen jàkk képp lañ koy defee tey day nekk jàkka ju ñuy wax sàkk jàkka joo xam ne kum des na ñëw di fa julli si kum kum soob waax ñëw julli si arraabiu ñeenteel bi al istimraaru mooy sax ala xamalin ci jëf max soo ñu julli juñ mooy julli ràññeel rek minal xibaadati ci jaamu yàlla waxuwate moom jëf jooju asalaatu mooy julli wa xiraatul quraan yi ak jàng al quraan wa zikrullahi ak tudd yàlla taala kawe na ne bu ko ñeenteel mooy boo nekkee jàkka ji di woor bëccëg nga boole ci sax ci jaamu yàlla ga nga xam ne moom lañ gën a taamu gën gën gën a taamu ci ku mel ne yow nag mooy julli ak jàngal xuraan tudd yàlla yeneen xeeti jaamu yàlla li muy baax baax ni ki bind kaamil ak yóbbu féetéere di ko jàng yëpp baax na ni waaye yee ñu weesoo ko gan moo tax mun a aw ko rek def ne sibla woon ñeel ko añ yaf xala mu def xayra haadihi salaasati lul yi la yett lul yi la yett mimmaa ci la nga xam ne xoo moom ibaadatu ak jaamu yàlla la kal istixaali ni ki soxla woo bil ci xam-xam nee na bu fekkoon ne yaa nga ci jàkka ja di def ak jaamu yàlla waaye bokk te yi ñu wax kon yooyu ñu wax daal koy gën nee na yóbbaale fi téere xam-xam di ko fa jàng loolu bari na tuyaaba waaye ni julli ak naafila ah, ma julli naafila ak jàngal xoraan tudd yàlla ni mën a sellale bakkan jàngum kese rek ko mënut taabatil kasiir yi wa kitaabatil kasir ak bind lu bari minal quraan ci alquran maanaam nga toog ci jàkk ji lixtikaaf di bind alquran ni ki bind ab kaamil di mun munu mu bari loolu jaamu yàlla la waaye gënut la gënut mooy julli gaag njàngam alquran mu moo gën bind gi ak tu ak sikar ga mais nag bu fekkee mbind ma bariwul nag kon dees ko sipp waa an yàkkoon ak bu nekk imaaman di ilimaan raatiban ji raatib moom daa wax ne sib nañ mu nekk ilimaani raati moom in itikaaf waaye neen loolu wax ju doyadi la ndax ci tegtal yonante bi rek bu masaa li itikaaf ci jàkka ja nga waxoon ci weeru koor moo daan doon ilimaani raatib ja kon nag dañ ko sopp kay mu doon ilimaani raatib waaye sibuñu ko waaye yar xaa ak mu yéeg xalaa satxin ci ko ab terrasse aw manaarat wala ab soroor waaye neen sib nañ tam mu ngi itikaaf ba noppi di yéeg ci kaw teraasu jàkka ja wala ca sorol ba ngir nodd te bu fa yéegoon ngir lekk rek ngir lekki foofu wàccaat des ko sib wa an yu xas ya ak muy jaale kenn aw yu xan ni awala muy ndokkeel kenn te lixtikaaf ba noppi kenn fekk ko ci biir jàkk ji mu jaal ko ci biir mbaa mu ndokkeel ko ci biir loolu sib nañ ko ne sax du am sañ-sañu moom génn ngir jaale ji kenn wala ngir ndokkeeli kenn bu fekkoon nag ndey ma bàyyam kenn ka daa faatu faawoon mu war a génn jaali koy dund waaye su boobaa du teew bu génnee lam doon def yàqu bu ne lam doon def yàqu nag mooy xay na bu ñàkk tuyaaba ji waaye bu ñëwee day tàmbaliwaat fan yam doon def te ñu saroon ko ba tàmbali ko day mel defutoon dara mu tàmbaliwaat wa an yaa tàggi fa ak mu lixtikaaf xayra mag fii mbir ko ñu ci boppam nee na sib nañ nga dugg ci lixtikaaf te fekkul li ngay soxlawoo ci looy lekk ak looy sol yooyu yëpp nga yóbbaale ko ndax loolu boo ko defee day waral génn rek du tee bu fekkee ne yor nga njëg gi moom bu la neexee bàyyi ba aajo dara rek daal di génn waaxu jënd ko daal ñëwaat ci saa gën a jege loolu moom du wàññi dara waaye bu fekkee amoo ko xam ne nga jóg di ko lebaatoo ko fàggu loolu boo koy def moom mu yàqu wa bu def na sopp al ihtikaafu al ihtikaafu bi ramadaana ci ramadaan wa yataakkadu dana ko it bil xasri ci fukki al axiri yi aju mujj minhu ci ramadaan waaw nee na weeru koor liñ ko gën a soppee weeru koor itam bu fekkee nur laa def lépp fukki ci mujj moom lañ ci gën a taamu faslu lii beneen dog la yabutulu dana yàqu faslu lii ab dog la yabutulu dana yàqu al ihtikaafu lihtikaafu bi fi ajal ci def bàkkaar yu màgg yi nee booy lihtikaaf boo defee benn bàkkaar ci bàkkaar yu màgg yi rek mu yàqu moom lihtikaf bi kasi naa ni ki njaaloo wa shurbul xamri ak naan sàngara wal gazi ak fen wal xas ak xaste xas yi boobu mooy tuuma tuumaal kenn ci mbirum njaaloo te saxut wabil jima mun ngaa ni noonu moom ni waxee mooy daa wax ne boo xasee bay lixtikaaf moom saa yoo defee bàkkaar bu mag rek yëpp la maasale ak bu ca doon rek ni ki benn ci yi mu wax su boobaa lixtikaaf ba yàqu na lu mel ne njaaloo gi ak naan gi sàngara moom danañ ci maasine yàq na waaye nag dañoo wute ci ci des moom ndax bakkaar yëpp ñooy yàq liitikaaf wala déet waaw foofu am na wute moom wabil jimaa ak ci ak booloo wa muqaddimaati yi wala nga ne wa muqaddamaati yi ak yooyu ñu jiital njëkk booloo ka xublati ni ki foon lay leen ci guddi aw naxaarin wala ci bëccëg xalaawa ci shahwati ci anamu bànneex maanaam bu jotee comme yu seen rawante na ab jàmbur muy njaaloo kon moom du njaaloo gañ na ci dugg waaye li mu ni mooy jotee commissaire wala yu jiitu jotee mel ne foonante ma laalante ci yaram lool bu ko defee te te te bëgg bànneex tax waaw kon moo xam guddi la moo xam bëccëg la litikaaf bi yàqu de bu ko defoon ngir tàggoo wala ngir yërmaande foon bi foon bi yërmaande la wala tàggoo foon bi foonu tàggoo rek la kon moom du yàqu mobil xay ak ci mbërëk suñu itikaaf ba yàgg mu gis deret kon xam nga mbërëm moom day aaye yaar day aaye koor aaye sax ci jàkka te itikaaf moom di sàkk yooyu yaar su boobaa kon bu gisee mbërëm day génn ba mu toog ba deret ji jeex bu deret jeexee mu ñëw àggalewaat wabil ak yi ak ci lekk nga washur bi ak naan nga naxaaran ci bu jëkk maanaam saa yoo xam ne moo ko tey lekk wala mu naan mooy dog koor gi rek itikaaf bi yàqu na su fekkee dafa juub rek nag mooy lekk ak naan nga tëyu ko wax ji gën a wóor mooy moom du yàqu day fay bis boobu rek day sax ci jàkka ji ba noppi nag bis boobu mañ ko wàññiwaale weccee ko beneen bis wabul xuróoj ak ci génn minal masjid tukkee ci jàkka ja li xëyri ma'ichatin ngir ludul ab dund aw li xëyri xaajatul insaani wala ngir ludul aajoy doomi aadama nee na saa yu génnee génn boo xam mën a naa ñàkk mais moom bu génnee ngir lu mu war lekk mbaa lu war a naan te fekk mu yore njëg day wax jënd ko daal di ñëwaat te bañ faa nekk toog di waxtaan ak kenn mbaa mu jéem fay bar mbaa dara moom du yàqu ba tey lu mel ni soxla si mel ne bëgg a dem ci wana wa wala bëgg a sangu janaaba wala bëgg a sangu ci ngaayu mel na yéen ci ngaayu xiit mbaa loolu yooyu yëpp ba tey du yàq dara ci litikaaf bi waaye nag lu loolu rek su génnee ngir lebi wala ngir wuti lum dundee mbaa dara wala ngir fay fayu ji bor mbaa ngir faye bor keneen wala yu mel noonu yëpp rek day daal di yàqu albaabu lii mooy buntu bi as saadisu bi aj juróom-benneel fil xaj ji ci aj waxoom aj waajibun aj war la fil xumri ci dund gi maratan wenn yoon xalal xurri ci gor al mukallafi kuy mukallaf al mustati kuy aji man kuy aji àttan mooy kuy aji man leen aj màkka bokk na ci ponk lislaam farata ci ki wax te mooy gor tey mu kàllaf te mën ko boole ci walla yasihu du wér nag illaa muslimin ndare tukkee jib julit maanaam ki nga xam ne yéefar la war na ko waaye bu ko defee jamono kéefar gi du ko tax a baax balaa wér rek fekk mu dugg ci lislaam wala xoo ñeel na ko arbaxatu arkaani ñeenti ponk am na ñeenti ponk al awal bu jëkk bi al ihraam mooy armal bi zamanin ci jamono maxsuus ñu di yi jagleel mooy ñu di ñu ràññeel te moom shawaalun mooy weeru korite wa dul qindati ak weeru diggu tabaski wa dul xijjati ak weeru tabaski waaw nee na picc njëkk ci ponk yi mooy armal armal dana ko wax léegi wax ji gën a wóor mooy nga yéene ci sa xol rek dogu ci def aj gi baaxum rek loolu boo ko defee armal nga da ànd yëpp moom ñun labbe ko jaay da ca ànd rek waaye jëmmi yéene ji moom ci xol bi rek jëm mooy jëmmi armal gi dana ko sàkkal jamono ju ràññi nag mooy bu weeru korite teroo rek bu la neexee armal ak weer wa ca topp hmm, weeru diggu tabaski ak fu fukki fan njëkk tabaski boole ci yooyu yëpp waxtu wa ci armal rek mu baax wa makaanin ak bërëb maxsuusin bërëb buñ jagleel armal dañ ko sàkkal bërëb boo koy defee wa huwa moom makkatu mooy makka lil muqimi ñel aji sax bi xaa ci makka waxtal ihraami ci waxtu armal ba nee na bu fekkee ne waxtu ngay armal aj gi yaa ngi biir màkka du soxla wa nga génn ba sa miixa mën ngaa armal rek ci biir màkka ci boppam waaye nag du tee boo génnoon ba ci sa miixa nga armal fa ñëwaat tam bu ko dee baax wa dul xulayfa wa dul xulayfati te mooy dul xulayfa li ma ñeel ka nga si na minal madina ci bàyyi ko madina ku bàyyi ko madina moom du mën a armale madina day ñëw ba fi ñu wax dul xulayfa ko defee nag mu armale foofa wal juhfatu te mooy juhfa li man ñeel koo xam ne tawajjaha dëmmal si na min misra tukkee ci misra wa shaami ak shaam wal maxribi ak sow juhfa moom nee na ku bàyyi koo misra wala nga bàyyi koo shaam shaam mooy siiri gox la woon bu yaatu ci njëkk mujj jamono ak fu mel ne sow bi sow bi ba ci fii ci suñu réew sax ci la bokk ci njëkk bañ daan aw ci yoonu njëkk fee ci juhfa lañ daa armale waaye léegi jaari gi ñu jaari madina nag njëkkee ko siyaar door waññi di ko ñëw màkk moo tax ñu bokk waa Madina armalawukaay wa yalam lam ak yalam lam li man ñeel koo xam ne tawajjaha dëgmal si la mu ne yaman tukkee yaman nee na koo xam ne nga bàyyi ko yaman baax foofu ngay romb booy ñëw kon boo tolloo yalam lam foofu ngay armale wa zaatu xirqin te mooy zaatu xirq li koo xam ne tawajjaha dëgmal si na min faris a bàyyi ko faris wa xuraasaan ak xuraasaan faris léegi moom ñu wax Iran Iran siiw na loolu lay fi xumay nekkoon xorasaan tam foofu la nee na ku bàyyi ko foofu na mbaa foofu nga romb boo ñëw kon boo tolloo daatu xirq foofu nga armale walaa yoon xaqiru du fasu nag moom armal gi illaa bi niyet ndara ci yéene illaa bi niyetin maqrolat mbir ñu lëkkale bi xawlin ci wax aw fi'lin wala jëf doon naa ko wax léegi daa wax ne armal gi balaa fasu balaa sotti dangaa yéene ba noppi boole ci wax ju taq ci armal wala jëf ju ci taq mel na nga yéene ba noppi daal tàmbalee wax labbayka wala nga daal di jëm wut ci kaaba fas ko yéene wari loolu laa waxoon nañ ko waxee noonu rek waaye wax ji gën moom mooy jëm yéene kese ji bu amee rek armal am na labbayka ji nag moom boo ko yeexee wax ci bi nga armalee ba mu yàgg loolu rek daal di war a am alamaan ndax labbayka lañ ko tudde sunna waaye ci dëgg-dëgg waru gar la wa yustaab bu def na sopp lil muhrim bi ñeel aji armal isaalatu shahasi dindi ay ñag-ñagam qabla ihraamihi ci njëkk armalam nga te xalmi azaafirihi ci lawi ay waxam lawi ay wexam wa izaalati ma ak dindi la nga xam ne xalaa badanihi nekk na ci yaramam min shaharin ci kawar nee na nag man nga ne yustahabu def na sopp lu muhrimu ñeel aj na ma armal maanaam boo bëggee armal sopp nañ nga defaru bu baax sangu ba daañu wax ca ngay léegi moom bu ko nag kawar boo bëgg tàggoo ci sa yaram ba mu sa bopp nga tàggoog moom ndax boo xasee armal mu ne la aaye